des des rapports yi nga xam ne dañ ko mettre dañ ko dañ ko téye publier wuñu ko ba aujourd'hui leur publication ak leur déchiffrage euh, mel ni luy amatee euh, ouais, ouais, bon être que aussi xam nga ça dépend de l'enquête parce que bi ñu commencé par exemple Prodac pour la gestion 2012 2018 2017 2018 2019 et en loolu c' est absolument normal je ne crois pas. mais de manière générale. parce que, parce que le rapport que... en y a, y a, y a en, en, 2002, en 2023 j'ai reçu le pré donc c' normal que le rapport euh, définitif sorte euh, en non je parle pas exclusivement d'un seul rapport je parle la plupart des rapports. oui que on, la bonne gouvernance gagnerait à ce que les rapports soient publiés à temps régulier. en ce moment-là ça permet d'apporter parce que l'audit n'est pas en foi ñi ñoo ko jox importance bu mu amul. parce que audit c'est surtout pour nga gis say erreur nga rectifier ko li gars yi di wax euh, jubbanti lu gis na ni lii parce que parfois dans la gestion da def lu nga xam ne c'est pas réprimable c'est pas une faute de gestion c'est pas une faute mais c'est des choses qu'on pourrait améliorer rapport Cour des comptes ou bien rapport IGE loolu lay njëriñ la plupart du temps loolu lay njëriñ bu ñu gisee nag def nga di def faute après ñëw ñu jox ko justice loolu rek moo fi mën a am ñaari mbir yooyu mën a nga rectifier gis nañu lii administration bi warul doxal noonu nañ ko defar ou bien lii faute de gestion la faute lourde la ah ñu jox ko euh, président de la république président de la république jox ko ministre de la justice ministre la justice yóbbu ko au niveau de la justice justice atte la yooyu tamit parce que rapport cour des comptes muy rapport cour des comptes muy rapport OFNAC muy rapport IGE ay nit a ko def dañ lay ne lii si jàpp nañu si sa liggéey def nga ko yow nga ne lii defuma ko nga défendre kon à la à la amul fa danger sur le principe parce que mais au Sénégal en Afrique particulièrement euh, réduction des comptes ba à chaque fois boo ko laalee rek ñi ni dañu wax waaw dafa bëgg sanctionner dafa bëgg man gisee ko dama gis ni que la réduction des comptes le le contrôle et l'audit et les audits c'est absolument normal dans une gestion qui se veut transparente te loolu tamit c'est là il faut féliciter le président Macky parce que toutes ces institutions tey yu ñuy wax moom Euh, sur la gestion de de, de l'ancien régime et les les les, les populations s'offusquent euh, ci façon ci anam euh, bi nga xam ne noonu la ñeneen ñi gérer li nga xam ne moom mooy. mais non mais non je ne considère pas que ça jette le pauvre sur l'ancien régime. dafa am xam nga régime dañuy wax ni mais dafa am ay nit ñu confier ay responsabilité te biñ lay confier responsabilité président de la république mënul yeewu chaque suba di xool li ngay def ak loo defut ou bien premier ministre bi di ko def ou bien yeneen ministère di ko def mënuñ ko. li mën a am mooy organe de contrôle ñu def ko te ñu def ko te boo bëggutoon lu leer doo ko def dafa am ay diir yu nga xam ne ñu ñëw ñu contrôler bu ñu contrôler yow sa bopp nga am sa moyen de défense parce que ay nit la aussi am instrument ñu contrôler la yooyu tamit nga wax ne li nga xalaat ci contrôle bi loolu mooy indi pré rapport après yow nga tontu ñu def rapport définitif ci pré rapport définitif nit ñi nag parfois aussi yenn journalistes yi da di xool rek benn affaire génn benn affaire loolu moo ci fekk boo liiree ba ci biir nga xam li ci nekk amul dara luñ ci reproché nit ki lu dul des remarques des remarques générales ou bien des des recommandations générales yu nga xam ni amul amul incidence particulière sur sur euh, sur sur euh, sur l'imputabilité d'une faute